moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñëwee Medina bees def siyaasatul ixaa bayna muhaajirina wal ansaar kenn ku ci nekk def naa la yow mi dëkk Màkka kii dëkk Medina mooy sa doom yi day mooy sa nangu mu fase ay jabaram yow yaay tànn buñ paree yedda bi dille bu deewee nga donn ko loolu lañ nekkoo woon ba mu yàgg ba xol yi nooy yàlla ne wa ulil arhami awlam ta'lamuuna dégg ulil arham ñi war a dox ñu yàlla boole ci yuusikum ji rek ñooñu loolu politique la yàlla ayoo waaye comme que ba tool yee moo ay comme daf ko doon jàngale bu bàyyi kon loolu danañ ci ñëwaat danañ def beneen waxtaan bu gàtt nee naa jënd sam xar dem na man sa jël xarabu jël téeram kaw nee naa sëriñ si dara yàq bi laay wax xaw ma lu ne la waaye téere téere bu kaw te noonu téere bu kaw mu ne ah kay lu ñuy bind pour téere bu konk bu ñu takkal ko xar bi man fii ngay wut def koy sa buntu kër gone yi naan am nañ xar yeneen ngeen xar allah akbar loolu yàlla lay bañ ba ne yaa alladina amanu laa tuqtilu sadaqaatikum bil manni wal adha allahu akbar bu leen neena bu leen yàq seen sax kon léegi xale yi naan jéem a ko defal mu ndax yàlla tax waaw xam nga ni ñu koy wax nag waaye dafa bëgg lépp looy def yàlla tax nawet baa ngi ñëw kan mooy nga dend ak nit mu mel ni man day tànn sa ndox di ko sànni ci kër parce que yow am nga mbokkum politicien am nga mbokkum sëriñ wala nga jaay ne tekki nga dara ci dëkk bi wala nangamu nangam moom amul doole nga jëli ko ko def wala nga romb boo oto mu soog ay yére nga jaar ci kii bi mu tooyal ko loolu yëpp ay àq la yoo xam ne àq yooyu yàlla astaghfirullah yàlla dina ko jéggal ki nga ko def moo la ko war a mën a jéggal moo tax ñu gën a tëdd bàmmeel lu yàgg te lan ko tëddee lu dara loolu ñun sëriñ si jënd nit mu feebar di jël ay rajo këpp ko ci turu daayira waaw daayira day daayira te képp ku feebar nga fa képp ku nekk ci sukuraat nga fa képp nangam ak nangam ñun yëpp jàppale leen jàppale leen ko gaay ku ko jëm ci nit say wax ci loolu bu njëkk ñun dañuy xaale bala ngaa tànk ci lekk bi da ngay dem ci commissaire la ñu jox la wala ya nga def ci fekk ya ngay gën ci borom kon ci teunk lool bokk yi nañu samanté pour dégg ki dem ak yow kër ka dem ak yow nangu kenn ku ne am droit loolu nga di ko def ca la ngay def nga di ko def ngir yàlla bañ di ko wax yàlla kat nee na laa ko tëlu sadaqaati bil man wal ahli loolu laa ci doon teunk kenn nga dem def nit mu jël ndoxam rigoram des ko mu jaar sa kër mënoo ci daal ndax maa ngi doon am naa mbokkam politicien am naa mbokkam dara wala nangam ak nangam loolu mooy ni waxtaan kenn ku ne bala nga àgg sa kër wala bu tawee ci guddi gi lu mel noonu sax moo tax yàlla téye taw na maay taw jiw bu taw yàlla ne ak tajrahuunahu أم نحن زارعون أم نحن نزرع وهو من الجملة الاسمية أشد وقع عند علماء Faatimatu Zahra doon suñu mag di mag bu baax di taawu Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass li ma ci mën a wax mooy ñun day ba ñuy xale yàlla jox ko ay jant lu juróom dana ànd ak ñoom waaye lekk ba moo koy bokkal boppam waaye bu duggee ba pare lekk gam da ponkal mën na caa moo koy yenu bopp mësta séye na bàyyi ma dugg jigéen ju baax kër jëkkëram la dëkk wala war a di jigéen ju baax kuy kuloo na kuloo kër jëkkëram bala dëkk dëkkul kër baayam dëkkul kër jàmm ñam jigéen ju ju yàq ci kër baay koo kuloo yaa ko kuloo jigéen ju yeewoo sa kër jàmm bi koo kuloo yaa ko kuloo dëkkoo fa nañ man day jëriñ la ba tay ci baax ñëw naa dafa dama sënc damay sënc mu ne ma naan la moom naan la ne wax mokkal naa ko mu ne ma ba saar la jeex boo ko bindee def ko ci butéel bu ndaw jël ne sant naa yàlla kenn laa ji dafa wax ay ne loolu a mu ne ma kër ga day am jàmm ay ay mag di xuloo ay jàmm di xuloo ay naan di xuloo benn bi su naa mu ne ma toogal ci lal bi ma ne a yàlla tere na mu ne ma bii bi mu julee pare ba pare bàyyi ma fi ma ñu toog ci sama lal ak bàyyi xalifa mu jël seen loxo ndeyjoor teg ko ci sama bopp bi ma ñaanale ci doomi baay ñëw moo tax ma xam ne yaay doomi baay di doomi baay tamit boobu six heures de ma ne nga naa ba dem moo nekkoon chauffeur bu Alaaji Ibrahima premier chauffeur 1962 ci la Alaaji Ibrahima dafa dëral xamoon na naa ne dañ fi ñëw tey ne damaa génn bi bàyyi ñes ak bàyyi ci sama bopp bi boo ko ñëwoon démb dana ko fer maa ngi hôpital Diourbel tey laa fi ñëw nit loolu koo xam ne bàyyi bi suuf naa ko ay doomu di leen may xaalis gàmmu bi jege daal di may xaalis Fatimatu Zahra mu ne ma ci àgg ma woo ko ne ko la ma mayoon lebal ma ko ndax damaa am gàmmu maam jox ko seen ay loolu ko yàlla béyee lu ci iman dama yàlla yàlla yàlla day jaay inna ma sutara comme ah waaw ko mën a yàlla day jaay kon ci tënk loolu lañ ko xamee baax kenn kenn xamul bu tukki du dem du dem fenn kon ci tënk loolu

ndax yàlla ko njëkk kon ci tënk nañ rafetal xol yi te nekk ay julli ولا تحرمن النوم ما فضل الله به بعضنا على بعض daf ne leen na suñu dund nga des boo ko gisee alquran di tere ñeetaane ñeetaane dafay jur keñaan bu nit am lu mu rëy rëy rëy éene naa la ko waaye kenn la daa dégg sax ne ku ma gën a ragal yàlla xare ko jàmm ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem génn àdduna yokk ci daraja Rasulullah ne yow yàlla yàlla nga ñu taw du taw bi daal di ay jéeg waaye taw boo xam ne daf ñuy jëriñ bismillah